jërë ngeen jëf mbokk yi nuy nañ leen ziar leen eh, donc dañuy ñëw wax ci eh, Sadio Mané donc li Iliman Ndiaye wax ci moom eh, mais wax ci Didier Drogba di mu wax ci supporter yu Côte d'Ivoire yi donc kooku di Iliman Ndiaye suñu international sénégalais bi ji jëkkati ne ay kàddu jëmale ko ci Sadio Mané la mu xam ne mooy Sadio c' est un grand joueur boo xamante ne daf koy jàppale ci côté vécu am ci côté expérience bi mu am ci football c'est un joueur boo xamante ne bu xam football la bu xam àdduna donc da koy conseiller lu bëree bëree bëri bëri bëri naan ko defal lii defal lee defal lii donc pour dire que Sadio donc euh, au delà football bi nga xamante ne mën na ko di ñu apporter loolu mais mi ñu apporter leneen ci groupe bi maanaam ñi nga xamante ne dañuy soog a ñëw ay nekk ay jeunes daf leen di jàppale pour ñu gën a intégré wu. donc mu nekk la am solo franchement macha allah donc euh, waaw kooku di Didier Drogba tamit am na lu mu yëkkati ci waa Côte d'Ivoire mu wax leen que ni wax na également équipe yi fi ñëw ñu dal jàmm foofu dëkk Teranga la dëkk la boo xamante ne Teranga la ñu xam mais tamit ñu leen supporter waa Côte d'Ivoire ngir ñu jàppale seen équipe parce que ñoom rek ñoom ñoo mën a jàppale ñi nga xamante ne ñooy euh, les élèves.